bu dee lu jëm ci mbirum cheikh mu cheikh sëñ Modou Kara dañ ci wax ay témoins yu tuuti sëriñ yaakaar naa sëriñ ma faam junj na ko léegi muy wax ju solo gis nga suñu borom subhaanahu wa taala du boole lu bokkul maanaam lu mu boole lu nekk rek lu bokk la boo gisee tey ñu gëm ne jamono ji ñu toll sëñ Modou Kara dafa war a feeñaat wala dafa war a dafa war a génn wala nit ñi dañ ko war a xam dañuy bàyyi xel ci ne tey jii kii yàlla dogal mu nekk fi maam Thierno yi dafa am ay wax yu ko jiitu li ko jiitu mooy ki nga xamante ne moom moo samp suñ Modou Kara yi defal ko lu ne wax ko ne ko ku la doon diir du la mën a jam kookee moo samp suñ Bassirou Anta Niang mii te moom moo ko waxal boppam man sotalu boppam ko muy sëñ Moudou Awa Balla sëñ Moudou Awa Balla moo ko waxoon ne ko demal jàngi boo jàngee ba pare nga ñëw li nga soxla woo lépp borom dara dana la ko defal li nga soxla woon lépp borom daaru dana la ko defal nekk ci ginnaawam financé ci alalam ba sëriñ Basiiru samp kër samp njabootam def yéppam mu ñëw kon tey su fekkente ne ku mel ni sëñ Modou dafa ñëw nekk ci ginnaawam damay wax ne nit ñi xamul ñooy wax waaye lu war am la te lu war a nekk la kon foofu fi ma ciy tëjee benn kàddu mu gàtt rek la ndax waxtu yi dafa xat te bëgg yi bëgg ñibbi beneen bi ci des alxuraanul karim ci boppam moo wax ne alxuraanul boo demee ci alxuraanul karim yi muy tere yépp lu leer la daf koy wax bu wér boo demee ci yi muy daganal yi muy araamal ahalalaahul bay wa harama riba nangam yu mel noonu yi si bari daf koo bind mu leer nañ ñi mu xam ne yàlla dafa daganal lii waaye dafa araamal lii yàlla daf koo daganal waaye daf ko araamal yooyu kenn du ko nattable am ci yeneen jëf yu bon ñu bon yoo xamante ne waxuma la yàlla di ko daganal wala muy wax nit ñi dafa araamal dafa wax sax ne bu leen ko laal la bu leen ko boo demee ci lu mel ni njaaloo boo mel ne ci def jëf yu bon boo mel ni xeex si mbokkum jullit lekk alali jirim yooyu yëpp suñ borom daf ne bu ko laal bu ko laal la wax bu ko laal jooju mu wax nag nun nit ci àdduna yëpp dañ ko cee doon nun ci àdduna yëpp dañoo doon yàlla ci loolu tey mën na ma cee joxe benn exemple bu ndaw rek ci nit ci politiciens yi politiciens yi boo demee ci tool bu ñu bindee seen i këy defar seen yëf ba mu jekk am na loo xamante ne dañuy bind ne bu ko kenn laal bu ci loxo kenn laal bu ko kenn wax bu ko kenn tudd boo demee tey mën nañ cee joxe benn exemple bu ndaw boo demee ci tey ki ci jiite réew mi lii nit ñëpp di laa laamee di wax ay troisième mandat wala ay nangam dafa xamal ay njabootam yépp ni leen bu ko kenn laal bu ko kenn tudd bu ko kenn wax ba ku bokk ci moom ñëweetu ko wax même booy defi débat ci débat télévision bi doo tudd troisième mandat dangay bàyyi noonu mu jàll léegi nu ni itam nun njabootu sëñ Tuubaa gi dafa am loo xamante ne bu kenn laal la tudd sëñ Modou Kara bu kenn laal la tuuti nañ ko fi baax su fekkente ne bëgg nañ jàmm su fekkente ne bëgg nañ jàmm ci réew mi nañ ko fi bàyyi parce que patrimoine yu Serigne Touba la alalu borom Daaru Muxti la te borom Daaru Muxti moo protégé woon réew mi ba dara yàquwu ci kon ay njabootam nañ ko fi baax wasalaamualeykum wa rahmatulah